Euh, waaw li ñuy euh, maanaam tàggatoo rek ci tàggatoo yi kàddu tàggatoo jàmm mooy ni ki démb xam nga ni ginnaaw génn ak àdduna kii di euh, homme d'état bu mag boobu di monsieur Ousmane Tanor Dieng ñu ñaan yàlla yàlla yokk ay leeram te xarake àjjana ak mboolem jullit bu fa fekk ku mu fa fekk bi ñu koy denc démb ci dëkkam gis nañu oto bi nga xam ni moom la njiitu réew mi yéegoon ànd ceeg nattangoom bu Mali muy njiitu réewu Mali dañu dem ba foofu oto bi saxaar bay jël tàkk yow ban gis-gis nga def si loolu wala ban jàngat. bu saxaar doon kese président mën naa siit waaye ginnaaw tàkk la jëf-jëf bi. Mm-hmm. ak cant la. xam mm-hmm. nga saxaar. Mm-hmm. saxaar rek da doo tàkk mooy doo tekki mukk. est-ce que. su tàkk la ñëpp dinañ la gis dinañ la dégg. yéen la ko ko yàlla defal mu doon li gën ci moom tàkk tàkk bi moom jëm kanam la man tel na moom ñii maa ko. est-ce que kon mën nañu jàpp. kon mën nañu wax ni tàkk-tàkk boobu am na beneen maanaam euh, leeral waaw ak yokk ak leeral goo xam ne dina dina dina leeral yoonu Sénégal ak njiitu réew mi. Mm-hmm. yóbbuwul dara. Mm-hmm. personnalité la li ñuy wax personnalité. Mhm. ci na ko jël na yett yi nga xam ne yàlla da ko tànnal boppam. Mhm. jël na tëdd ci yu koy dal tax. incha allah allahumma allahumma amiin gën a kawe ñu ko koy ñaanal yàlla xari ko àjjana. Mhm. te ñaax doomam yi li seen papa meloon nañ ko mel. Mhm. seen papa amul problème boo xam bëriwul. tabarakallah am na boppam. waaw soxna Salbé euh, ginnaaw ñaan yooyu nga jëmale ci ku tedd euh, kooku nga xam ni mooy euh, Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla nangu defal ko mboolem ku fa fekk ko koo xam ne fekk na ko fa ci loolu yow ak fi la askan yu teg àdduna bi sax laay wax tey boo amoon message boo xam ne ji da koy jagleel askanu Sénégal ak kilifa yi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi diine ji lan lay doon.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 war nañoo delloo xel ci suñu suñu borom yàlla subhaanahu wa taala di jàppalante man daal bugguma ay maak bugguma lakkle moom kenn bugguma xeex la ñuy toog di waxtaan di di ut solution yi ñu nekk ci suñu daal mën a ànd ak ñoom topp seen ginnaaw est-ce que loolu daal laa gëm Mm-hmm. man ba ma demee Makka gisuma ko Rasulullah mm-hmm. keneen laa ko mm-hmm. kon fii Sénégal am na lu fi ne ngeen xam nañu xam ci def ndànk ci mankoo di booloo bàyyi histoire bi xuloo bi xeex bi daal nekku ba wallahi buñ ko bàyyee daraje laa ilaha illallah muhammadu rasulullah Sénégal taxaw na de buntu ubbeeku na de géej gi wal na de Hmm. jërëjëf. ñu nekk ci kaw nañu jàppale ñu nekk booloo mag loo di xàccandoo di tuurandoo su boobaa rek Sénégal kanam rek léegi. incha allah. macha allah kontaan naa bu baax sénégalais yi di leen remercier. Hmm. di leen Mhm. ànd ak millions yi rek yàlla may ñu allah incha allah jërëjëf euh, soxna Selbé euh, la rédaction Sénégal 7 ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal tawféex di ko ñaanal sa njaboot di ko ñaanal Sénégal di ko ñaanal àdduna bi yépp jërëjëf ndom amin amin amin mu mhm. dëkk ci asamaan mhm. mhm. jërëjëf jërëjëf Ndeye Ndom ñu ngi lay delloo ziar ñaanu yàlla yàlla yé mottali yi te may ñu ndam ba ñu uh, waat la feete ko ensemble incha allah jërëjëf Ndom